marhaban wa ahlan bikum yéen ñu ñuy seetaan ci adduna fu ngeen mën a nekk ñu ngi fi ci meddina Baye seen site Uras Info euh, comme ni mu koy doxalee rek àjjuma bu jot rek euh, su ko defee rek ñu waajal jumaa ji ñu fas yéene ànd ak ki nga xam ne moom moo di Mawlaaya Imam Cheikh Tidiane Ali Cissé ayyadahullah wa nasara ñu ngi nii nag uh, ci salle bi di waajal li nga xam ne moom moo di julli uh, jumaa gi xam naa tey comme ni ngeen ko xamee uh, gars yi yëpp jël seen matukaay ci li nga xamante ne mooy wàllu masque yi ak itam incha allah bu ñu àggee ba ca fi nga xam ne moom moo di jumaa ja ci képp koo xamante ni yaa ngi ànd ak moom. Euh, espace yi nga xamante ni moom lañu santaane euh, ñu daal di ko fonk li ngeen jot a gis noonu mooy wane ne kon ñoom ñëpp rek jël nañ seen matukaay ci seen wàllu masque ak euh, yu nu mel gis nga ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy mu ngi noonu ni ngeen ko gisee kooku mooy ngóor nekk ci bunt bi mu ngi sel bi ku ñëw bala ngaa dugg rek di nga jël lii di sel gis nga ko voilà lii mooy matukaay yi nga xamante ni noonu lañ ko santaane imam Euh, Mawlaaya Cheikh Tidiane Ali Cissé euh, ayadahullah wa nasara jël ay matukaayam yëpp fa tabarakallahu noonu it lañ koy jëlee ci jumaa ji léegi léegi di ngeen ko gis euh, danañ leen ko wan en direct ci jumaa ji incha allah. voilà gis nga ko comme ni ñu ko ngóor wanee noonu bala ngay dugg da ngay jël li nga xamante ni moom mooy raxasukaay bi macha allah kon imaam daal jël na ay matukaayam comme ni nga xamante noonu lañ ko santaane jamaa al mubaarak incha allah léegi léegi lay voilà ñu jël information. ngeen dellu seen kër yi utulee sa kër am nga àjjuma. toogal biñ tëralee ci jumaa yi. xaatu. mat na. am ñu ngi taxaw ci jumaa ji sëriñ bi mu ne mayit képp ku taxaw fi di fuuxoon na ngeen ma xuuf doxal bi ñu amaloon ci doxal doxal bi ñu amal ci jumaa ji mët na ku ci nekk boo sarbee na nga jullee sa kër am nga yoolu julli wa xawaam macha allah comme ni ngeen ko déggee noonu muy information boo xam ne kenn dettaliwul leen ko yéen a ko déggandoo euh, ku jullee sa kër am nga julli comme ni nga ko waxee léegi rek ci kër imaam imaam jël ay matukaayam macha allah tabaarakallah moom moo njëkk jël ay matukaayam macha allah mooy papa voilà mu ngi noonu ma doon jël sel man tamit comme ni ko ñëpp rekk di jëlee kon jumaa jàngoog jël nañ ne matukaay bu baax a baax ci lépp loo xamante nii rek mooy li war teel nañoo jël seen matukaay tëj nañ jumaa ji ndax adat bi ñu soxla woon am nañ ko ba noppi موي مدنا مسجد بانغوك مسجد ابراهيم اسس بالتقوى وارجوك لا تحثيما فيها ولا لغوا للصحب ابي العباس فيك تعلق تنال من العليا به رتبه القصوى ويكت باكو ويون كن مغنونو هو الفيد لا يغفى على من تبصر فمن شاء ياتيه ومن شاء انكره mu ngi noonu jumaa ji ñu leen doon taggal léegi ci waxu ahadul muritani yi na nga xam ne tabaarakallah macha allah xam ngeen xam Cheikh Ibrahim xam ngeen xam itam li nga xam ne moom moo di masjid bu ne mel wane ne masjid la boo xam ne dañ ko fondement ci ragal yàlla te suufam amul caaxaan suuf la suuf su barkeel suuf su nag mooy si la suuf kon weddi gis bokkul ci képp ku ñëw ci jumaa ji di nga gis li nga xam ne noonu la ñu organiser li nga xam ne moom moo di li war ci ay matukaay yi nga xam ne jël nañu ko amul kenn koy gis te fekk na du ne mu nga amee masque waaye topp ma comme ni nga xam ne noonu nga koy gisee nii jumaa ji bët bu nekk foofu la kenn di toog xasee fees rek fees na jeex na kenn dootu dugg comme ni ngeen déggee léegi l'information bi ñu jàllale ko kenn duggatul kenn jàllatul tax tëj nañ lépp ndax li nga xam ne moom lañ soxla ci adat am nañu ko ba noppi mu ngi noonu sàppe ba njëkk baa ngi gis nga ko ni ko organisé kilifa yi kenn ku ci nekk it jël matukaayam ndax comme niñ koy waxee toujours rek yonent bi sallallahu alayhi wa lépp lu mu daan digle moom moo ciy jiitu fii noonu la amee ci Medina Baye lépp loo xamante ni nekk wax nañ leen ko wala digal nañ leen ko ñoom jiitu nañ ca ba noppi ndax tabaarakallah macha allah jël nañ matukaay yi ba mu mat sëkk macha allah na tabarak bi liqaa'i cheikhana wa sayidina macha allah tabaarakallah cheikh Mouhamadul Amin ayadahullah wa nasara taala baqa ak seykhi mu ngi noonu jeex na lii rek doy na seede jël na maskum toog gis nga ko espace comme niñ ko diglee fii mooy Medina Mawlana Cheikh al Islam Hadj Ibrahim dëkku diina dëkku lislaam waaye itam dëkk bi nga xam ni boromam mosta jëf lu dul rek ci ndigle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax isa saara xayru naasi surtout wara axa wa in xalla yowman fal masiru baidu waaye it bi zahiri charin wa nuuril mubin bila shakkin wala rayib kooku mooy moo Mawlana Cheikh Ibrahim Niass fii mooy Medina Mawlana Cheikh jël nañu suñu matukaay bu mat sëkk kalaada xam nañ lan mooy jumaa xam nañ itam lan mooy wér-gu-yaram màgg gi màgg ci doomu aadama macha allah.